gis nga réew bu ci nekk xam na kuy sa morom ak ku sa morom man c'est pas parce que tey maa ngi ànd ak président Macky Sall laay wax bilan Macky Sall bilan Macky Sall dañ cee teg bët benn président deful li borom mais bëgg jaar na ah, Aliou Aliou Aliou wax na dëgg man tey waroon sol tal tenue de mais si si sama tenue bi man bën laa jaay si yaa parce que bëgg mbir bi ñu leer mënuñoo téye réew bi bëgg ñoo napp nappaajee bu ñu amul fula ñu napp nappaajee saaga suñuy kilifa ñu ne nemm saaga suñu président ñu ne nemm saaga suñuy juge ñu ne nemm saaga suñuy ministre ñu ne nemm day dàgg nag day dàgg xam nga su ma Déthié Fall Déthié Fall candidat la nee na candidat la moo ci wax waxagul lu ëpp ou bien tooñ ou bien def dafa bëgg Malick Gakou candidat la kan moo ko laal kan moo wax ci moom kan moo ko tudd Khalifa Sall sax dégg naa ni mu ne candidat la kan moo ko tudd mais yow nga dem nga dem citoyen ni yow nga ne dafa sàcc vingt-neuf milliards mu ne la boo ci jaaraatee ma porté la plainte nga jaaraat nga ne IGF nga jóge ci ne IGF nga jóge ci ne internet ñu yóbbu la tribunal nga ne du dem tribunal par force ngay dem tribunal par force parce que bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko demul tribunal kenn Sénégal dootu dama tribunal bu ñu àttee Ousmane Sonko kenn du àttee kenn ci Sénégal. loolu lu ci yoonu Macky Sall ci loolu yow da nga ne Mame Mbaye Sall ci la Mame Mbaye yëngu tribunal lu ci yoonu Macky Sall fan la complot bu nekkee ci loolu nga toog ba digg guddi ci couvre-feu nga taal sa oto yow rek nga ànd ak benn garde corps nga dem ba ci koñ boobu nga ne garde corps bi ma fii nga yóbbu dugg ci salon de massage am du fa xew nga ne Macky ndaw si ndaw si ndaw si ndaw ne am na lu ngeen bi mu ne la am na lu ngeen jote amul daañu mu ne man suma deret kenn du ko laal xamul ni xamul ni ADN même kawar doy na si test ADN dana xam jote nit doy jotewul loolu ngeen ko laal nga ne loolu itam Macky Sall moo nekk si ginnaaw waaye Macky Sall daal moo ñàkk chance la malchance de Macky sa c'est d'avoir une opposition malhonnête mais que Ousmane Sonko se tient debout troisième étape léegi mu gis yi suñu xarit suñu mag nekk aussi ci ministère de la culture mooy Lamine Ndiaye mais Lamine Ndiaye def ko jox quelques leçons de comédie bu ñu demee tribunal ba xam tribunal mun na ñàkk mu ne léegi day feebar feebar dana fa jóg de dana jóg ci làmba dana dem tribunal d'une façon ou d'une dana wuyu danañ ko atte te loolu loolu lañ war a xam xam ni réew mi kenn du ko booyee duñ ko dénk ay saay-saay duñ ko dénk ay saay-saay te loolu xeexaluñ Macky Sall suñu bopp lañu xeexal l'avenir de Kaffrine lañu xeexal l'avenir du Sénégal lañu xeexal maintenant on se li li des ba des mooy tey am na satisfaction totale liñ doon xaar ci ndaje gis nañ li ko raw li des nag mooy ñu continuer à maintenir mobilisation à Kaffrine comme à Dakar